docteur Nafissatou Falsissé, yow médecin pneumologue responsable du responsable bureau dépistage prise en charge et soutien psychosocial fi programme national de lutte contre la tuberculose liñ wax ci prévalence de la maladie Madame tolwayou euh, li di tuberculose fi ci Sénégal ndax mën ci am ay tuberculose niñ koy problème de santé publique problème de santé publique nak lolu day woné né suñu autorité ministère de la santé yi dañ ko jox solo loolu mo sax solo créé programme bi nga xamné en 1985 lañ ko créé parce que tuberculose li ñuy wax ba légui mi ngi ci dëkk bi té foog ñu faj ko pour mu jóge fi incidence bi nak mi nekk euh, bu ñu wax ci wolof mais 100 000 habitants yu ñu jël incidence bi bo xolé 112 cas pour 100 000 habitants donc lolu moy tekki ba légui quand même tuberculose mi ngi ci bir askan bi té faaw ñep japp ci pour ñu mën ko xeex. wañéku na bu baax nak bu ñu xoolee ci at yu muju ni incidence bi mi ngi jóge woon presque 132 du wàcc di wàcc 122 ba actuellement en 2023 incidence bi parce que OMS moy fixé incidence de ki Sénégal mi ngi ci ay jéego yu baax parce que suñu objectif mooy euh, tuberculose jóge fi d'ici 2030 Mon la wax stratégie mettre fin à la tuberculose ci jéego yooyu la ñu nekk te ci jéego yooyu gis nañ solo yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def loolu moo waral incidence mi ngi wàccee mi ngi wàññeeku wante des na xeex bi encore des na pour mënees ko fee jëlee. ci wàllum prise en charge ñi amé tuberculose naka lay fi ci réewum Sénégal. prise en charge tuberculose ci Sénégal lu gratuit le maanaam malade bi du fay dara. buñ ko tambalé ci malade bi nga xamantene day saxat manam di saxat mu am saxat bu mat fukki fan ak juróom wala lu ko weesu mën dem kër docteur pour ñu saytu ko xol ko pour analyse yi ñi def tamit malade bi du fay te même bu féké dañ la xol ba gis ne fièvre tuberculose nga amé ci bir Sénégal bi yëpp district sanitaire yi parce que 79 lañu fépp fo mënti dem amna ay centre de traitement de la tuberculose yo xamné garap yi fa lañ koy joxe di nga mëna faju ba wér def sa analyse yi nga wara def ci digënté bi ba ñu ne la kat wér nga peng alhamdulilah euh, feebar bi tane na donc loolu laa bëggoon rappeler que nit ñi daal bu ñuy sëqat fu wala ñun dëkk koo xam ne mi ngi sëqat fukki fan ak juróom wala lu ko weesu nañu dem kër docteur ñu saytu leen ñu xool leen tekkiwul nag ko kuy sëqat rek bu amee fukki fan ak juróom tuberculose ndax mun na nekk yeneen feebar mais teel a dem ñu teel laa xool mën laa faj nga tane ak jàmm ak salaam te doo ci génnee sa benn dërëm. jamono jii dañuy dégg léeg-léeg ñuy wax euh, tuberculose bi dal. ndaw ñi tout tanki manam tuberculose de l'enfant mom naka lay manifester wala tolwayam fi ci réew Sénégal. tuberculose de l'enfant Ben partie la ci tuberculose globale bi ñuy am ci ci Sénégal wax ni muy jàppee mag noonu la mën a pour tuberculose de l'enfant nag euh, objectif yi ñuy dëkk bi fixé ba légui yeggaguñ manam dafa am sous dépistage. maanaam bu ñu doon xaar tey 1000 cas peut-être que xaaj bi la ñu gis beneen xaaj bi mi ngi ci biir askan wi loolu nag foog ñu am ay jéego yoo xam ne teg nañ ko sax mais gën cee góor góorgóorlu pour mu yokk booy xool bu ñu jëlee résultat wu 2023 yi gis nañ ne principalement. feebar bi tuberculose xale yi comme bu mag bi rek même yoon bi lay topp mi ngi gën a am ci région yi nga xam ne foofu la tuberculose gën a ci Sénégal maanaam Dakar capitale bi xam nañ lu tax nit ñi ñu ngi bëri bi ci topp mooy région de Thiès bi ci topp mooy région de Ziguinchor Djourbel ñeenteel bi mooy région de Ziguinchor mais Dakar xaaju cas tuberculose yi ñuy am ci xale yi comme bu mag ñi région de Dakar lañ leen diagnostiqué programme bi nag am na ay jéego yoo xam ne mi ngi koy teg pour renforcer vraiment le dépistage tuberculose ci les yi je suis org at yi yëpp sax ñi ngi ci ba léegi perspective Moi, mooy di organiser ay sessions de formation pour ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpital centre de santé liggéey ak euh, pédiatre yi liggéey ak euh, DCME mooy direction de la santé et la mère de l'enfant ak ay ñep képp koo xam dal ci walum paj ngay yëngatu ñu mëna ki. Yenen yeneen yi tamit moy amna appareil yu ñu tuddee jeune expert amna ci Sénégal ci région bo dem dëkk bo dem amna fa jeune expert yoy xalé yi gis nañ ne feebaru saxat bi ñu ci bëri mënuñu xaartandiku mënuñu tuflé. donc fiñ ñu ni ci ginnaw kër bi mën nañ ci def tamit analyse bi pour saytu pour mun xamné xalé bi amna tuberculose bu ko defee ñu fajj ko ba mu wér te it du ci fay du ci génnee dërëmam. ñi dégg lég lég yeen tamit ngeen di wax li di walum euh, tuberculose pharmaco-résistante mom lu mu tekki ak euh, taxawayam wala sax tolluwaayam fi ci réewum Sénégal. tuberculose résistante ben patch la rek bo jëlé globalement tuberculose parce que ñun peut-être comme médecin technicien yi prestataires dañuy wax tuberculose pharmacosensible tuberculose résistante c'est compliqué na mais tuberculose bi tuberculose sensible mooy bi nga xam bu benn malade bi ak ak mais tuberculose di heureusement lool ci réew mi parce que boo jëlee à peu près une centaine de cas la chaque année daaw plus de 111 cas 103 ñu sous traitement tuberculose boobu li koy gën di farandiku di ko yokk mooy dañuy seetlu malade yi nga xam ne bu ñu tàmbalee faju tuberculose bu simple boo jëlee sa garab une semaine ñaari semaine weer yëgatoo yaram buy tàng dara métteetu la dañuy arrêté seen traitement mais du tee doomu jàngoro bi nekk ce qui fait que bés bu ñu dellu si waatee pour ñëw pour faju bu ñu saytuwee dañuy xool ne daamu jàngoro bi dafay daal di dërkis gën a naqari faj mais malgré loolu tam loolu traitement bi am na protocole faju yi nag gudd na lool ndaxte day dem ba juróom-ñeenti weer mun na dem sax ba ci presque ñaari at mais garab yooyu pour faju it maladie yi ak analyse yi duñ ci fay dara duñ ci fay dara parce que programme bi da koy jël en charge par état du Sénégal ak partenaire am yi koy jàppale ci saytu feebar bi ci def analyse yi ci naan garab yi ba wér ak jàmm ak salaam donc en dehors de cela maladie am tuberculose résistante boobu am na yem yeneen moyen y a ne programme bi pour jàppale leen manam luñuy wax appui nutritionnel duma dugg ci xaalis bi ñaata la wante maladie am tuberculose résistante dañuy laaj ñu war lek lekk bu am solo ndax garab yi ñuy naan ak feebar bi tam nu mu leen di loof loolee am na benn appui bu ñu tudd appui au transport ndax dans TBMR malaat bi dafay war chaque jour ñëw kër docteur pour ñu saytu ko pour jox ko ay garabam mu naan donc dinañ ko jàppale ci lu jëm ci paas bi dinañ ko jàppale tamit ci lu jëm ci wàllu lekk bi pour que malaat bi mun a faju wér ak jàmm ak salaam ak bañ a wàllo ñi mu nekkal. wax Sénégal pour nit ñi bàyyi xel ci tuberculose. képp koo xamante ne mi ngi saqat mu am fukki fan ak juróom wala mu wees ko wala képp koo xam ne dëkk nga ak kuy saqat wala xale boo seetlu ne yaram bi mu ngi tàng mi ngi jeex lekkul bu baax waaye ngal la yóbbu leen leen kër docteur ñu saytu leen xool ndax loolu la bu dee loolu la moom kër docteur yi ñun tàggat nañ leen ba nga xam ne ku amee tuberculose dinañ la faj nga wér ak jàmm ak salaam te doo ci génnee sa benn koppar